ouais, d'accord <laughs> bon pour le premier numéro l'inconnu le plus célèbre donc dañoo def un jeu de mots. ok l'inconnu le plus célèbre. Mhm. l'inconnu ak célèbre. il est mais il est inconnu comme ni Cheikh Mate. il est célèbre mais il est inconnu. inconnu dans la mesure où ñàngalem tey jii nii boo xoolee euh, ñi mën a duut baaraamu ñàngalem Serigne Touba ba ci murid bi ci ci ci ci ci mhm. murid bi. day des lu bëree bëree bëree mhm. bëree bëri te loolu. Euh, dafa doon loo xamante ne ni toll nañ ci jamono foo xam ne dañ koo war a wane wax ñàngale sëñ Touba fan la mm. ne. Mm. wax ko ndaw ñi wax ko aussi mag yi nga xamante ne jotuñoo gëstu ci ci wàllu woowu. Mm-hmm. donc loolu moo gën a sabab. en mm-hmm. fait ñu andi le titre l'inconnu le plus célèbre. Mm-hmm. ñu ànd ci nag avec ay borom gëstu ay gëstukat ay boroom xam-xam. yoo xamante ne yàgg nañoo gëstu ci sëñ Touba ku ci mel ni Seydina Omar Ba. éminent chercheur moom mhm. France la la nekk mhm. am na tamit keneen sëñ Moustapha Diop moom it France la ne ñoom yi nga xamante ne seen thèse sax ci Serigne Touba lañ ko def mhm. donc ñooñu yëpp nga xamante ne ay boroom xam-xam lañ donc dañoo jugé woon nécessaire ñu réunir leen autour d'un magasin bu ko defee ñu titre ñun titre bi rek la ñuy fente bu ko defee bàyyi leen ñoom ay boroom xam-xam lañ bu ko defee kenn ku ci nekk rek déggin bi nga ci am da koy andi ci biir magazine bi en fait donc loolu moo moo andi tey jii nii Euh, l'inconnu le plus l'inconnu le plus l'incompris bi ñu ci jugee naturellement ku ne Serigne Touba wax Cheikh Ibrahima Fall ndaxte hmm. le première mouride en réalité c'est maam Cheikh Ibrahima Fall hmm. bien vrai que moom bi mu ñëwee ci ci sëñ bi fekk na fa euh, yeneen taalibe yi ko fa jiitu woon hmm. mais ki njëkk a jébbal boppam sëñ bi Cheikh Ibra la tudd donc boo wanee Serigne Touba rek donc war ngaa wane kan mooy Cheikh Ibra li nga xamante ne ni moom moo wane woon euh, Serigne Touba. te dañ koo umpale te moom dañ koo umpale dafa doon koo xamante ne nii. Mhm. Euh, yaakaar naa mën na émission comme ni ko. dañ koy def émission ni ko Birama waxee. c'est que doyen moo bëggoon ñu cof ci rek. ndaxte Cheikh Ibrahima moom dafa doon mais au delà de la euh, ki nga xamante ne nii ci aspect religieux bi. Mhm. Cheikh Ibrahima bu ñu ko jëlee en tant que. un entrepreneur. Mhm. dafa doon quelqu'un koo xamante ne. <laughs> en fait il a beaucoup contribué. dans mm-hmm. l'économie sénégalaise mm-hmm. te loolu archive coloniale yi ñoom ñoo ko seede mm-hmm. ñoom seeni archive ils l'ont écrit bi ñu seede ci maam Cheikh Ibra bi ñu ñëwee ci moom dañ ne Cheikh Ibrahima Fall est un fin diplomate remarquablement intelligent donc dañoo insister sur le remarquablement bi nga xamante ne moom dafa jonjoon ak ñoom ndax moom bi ko bi ko dégg naa sëñ bi nekk géej moom mu ngi jëflante tubaab bi di xool ci mbiru sëñ bi fan la toll di yéeg di wàcc di négocier te loolu sax. teel a a ubbeeku ci agriculture ak foncier di xool di xool yi mën a jàppale. voilà loolu ci wàllum politique ci wàllum ci wàllum politique sëñ Birama ki mm. njëkk joxe ndigal. ci mm. wàllum politique. Cheikh Ibrahima Fall la te sabab bi pour sëñ bi dellu si woon la. ndaxte dafa amoon un milliard. Mm-hmm. Ah, boo mm-hmm. xamante ne Carpo. waaw mm-hmm. ah, nga xamante ne moom dafa bëggoon doon maire Saint-Louis. léegi bi mu ñëwee dee Cheikh Ibra ambition boobu noonu. te moom. boo xooloon ci élection yooyu noonu c' était l' mais Cheikh ibro da koo jàppale. woo ndongo yi bu ko defee kenn ku ci nekk andi ñaata vingt cinq franc xaw <laughs> vingt cinq franc à l' mm-hmm. ñu dajale ko ci lañu financé campagne Carpo. Mm-hmm. ba mu gagné maire maire maire kii. Euh, Saint-Louis mm-hmm. par la suite ci la ci la nekk député. de la cause du retour de Cheikh. Ahmadou Bamba en 1902. donc loolu yàgg na te loolu Cheikh Ibrahima Fall am na. rôle bu mu ci joué te esprit diplomate boobu mu amoon nga xamante ne mënoon na ñëw jëflanteeg tubaab bi ndax ñëw yóbbu woon sëriñam mais deful loolu dafa xool. ba mu <laughs> loolu Mame Cheikh Ibra Fall benn émission la parce que il faut ñu xamal ni Mame Cheikh Ibra Fall surtout lu ñuy yaakaar ab dof la. déedéet dof lu dina jàpp ko. déedéet ñii di dof dof lu naan Baye Fall laa bëgg nekk su leen neex. loolu émission la pour ñu xam ni maam Cheikh. archive coloniale yi doguma la doguma la archive coloniale yi bi ñu xayma en fait les récolte de Cheikh Ibra li mu ko doon andil euh, mhm. par année ils ont cinquante mille francs à l'époque cinquante mille francs à l'époque c'était des milliards bu fekkoon jamono ji parce que dévaluation yi bëri na mhm. donc nga xamante ne kon Cheikh Ibra ba pare li mu yoroon ci ay ay tool kenn mënu ko ba léegi tey jii di ci immobilier. Mm-hmm. kenn kenn dabu ko te dafa doon dafa doon dafa doon recourir à not ci ay notaire à l'époque mm-hmm. nga xamante ne ñooñu ñu bëri xamuñ ko woon. dafa teel a dafa teel a exactement.